aywa Cheikh yéen kaay yi ak la ñu xëyee dañ koy dooreewaat ak l'observateur à la une Ousmane Sonko ak euh, parti bi euh, di euh, Pastef emprisonnement du leader de Pastef et dissolution de son parti. mu mel ni itam ki nga xam ne moom moo di njiit bu Pastef Faty fanaan guddeem gu njëkk ca Sébi Kotaan lu soxal itam parti yi nga xam ne moom la jiite woon daal dañ koy tas tasar ki rek jël dogal bu ni mel bokk na ci jëwriñ ji nga xam ne nag moom la ñu dénk wàllu biir réew moom Antoine nangu euh, politique à la première euh, nuit à la prison de Sébikotane lu ni mel euh, mi ngi ci li nga xam ne moom moo di page 2 jàpp 7 bu l'observateur yenn ci ay leeral itam yoo xamante ni indi nañu ko ci mandat yi nga xam ne itam moom lañu dal di làng ci ndoddal ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko di maire bu Sikicoor lu doy loo xamante ni itam ma nga ca hôpital Abbas Ndao le récit désastreux du père du bébé retrouvé mort ci li nga xam ne nag moom à laver moo nekk itam euh, seen ak euh, taaw daanaka bi ñu ñëwee dañoo fekk seen doom joojee nag euh, yaram bi yëpp daal di tasaaroo wala bokk daggatoo concours général 2023 moom njiit bu réew bu Sénégal le discours d'adieu la duppee lu ni mel muy sàkku itam ci ndaw ñi ñu gën a am ak ubbeeku ci lépp lu soxal wàllu patriotisme ak itam daal di fonk li nga xam ne moom moo di seen valeur leneen i poñ yoo xamante ni njiit mi dal na ko yëkkati mënees koo liir ci li nga xam ne moo di 3 bu l'observateur ginnaaw l'observateur beneen ab yéenekaay bu ñuy àddu. muy enquête ba tey ak Ousmane Sonko. ak Sonko li nga xam ne itam moom moo ko jural kaso bokk na ci ay kàddu yoo xamante ni ah, da ko doon faral di yëkkati diir wi nga xam ne ah, da ko doon diir gouvernement bu Sénégal ak itam défier wi nga xam ne itam mi ngi ko doon amal ah, jëmale ko ci li nga xam ne nag moom moo di institution yi lu mel bokk na ci li nga xam ne nag moom moo ko yóbbu ca kaso audition leader bu Pastef ce que ses avocats ont di aux doyens des juges mu mel nag mu ngi ci li nga xam ne nag moom moo di euh, page 3 euh, beneen ab yéenekaay yi. la le quotidien ba tey ak Ousmane Sonko mi euh, fanaan ku dem ku njëkk ca Kasop Sébikotane. placé sous mandat de dépôt la rek daal di fësal Sonko à huis clos mu mel ni itam loole lañu ñu daal di addu ci ki nga xam ne moom moo di maire bu Ziguinchor moom Ousmane Sonko xam nga ni itam eh, mbirum Sonko saa yu amee yenn ci aw fitna woo xamante ni dañ koy faral di nemmeeku mu soxal wàllu manifestation ak yeneen. ne ñu xeetoo tax na itam ñi nga xam ne ñoom ñoo yëngu euh, ci wàllu station service yi nag ci la jamono amal nañu aw grève boo xamante ni euh, tënk nañu ko ci 72 tey lay door jëm li nga xam ne euh, moom moo di alxemes yemook ñeenti fan ci weeru août. ñu dem ci le soleil ak Ousmane Sonko. double peine pour Ousmane Sonko la rek daal di dippee lu di mel nga xam ne itam tas nañu ko Pastef dogal ministre de l' intérieur mu mel ni itam fàttali lépp nañ tënk ci li nga xam ne soleil national. nationale waaye jàppal ne tas yi nga xam ne tas nañu ko euh, Pastef du ñu ne guléet fii ci réew bu Sénégal ndax am na yeneen i parti yoo xamante ni jot nañoo dund euh, lu ni euh, mel Fatick. ñu dem euh, ci euh, libération mu xëyee moom it ak Ousmane Sonko mi caabi féete ginnaaw. Ousmane Sonko mi caabi euh, féete ginnaaw moom ki nga xam ne moom moo di njiit bu Pastef waaye jàppal ne. Mm. nit ki démb lu toll ci ñetti doomi aadama yoo xamante ni nemmeeku nañu ñu ñàkk seen bakken ci manifestation yi nga xam ne nag moom moo am diggante Ziguinchor yi nga xam ne nag foofee la doon maire ak itam fii ci Ndakaaru lu toll ci ñetti doomi aadama ñoom ñoo ci ñàkk seen bakken appel à l'insurrection mu mel ni Cheikh Toussaint Manga euh, daal nañ koy arrêté Pape Alé Niang itam euh, daal nañ koy euh, déféré faat yi ñu dem laat kubit moom it mu xëy ak xibaar bi di Ousmane Sonko mi nekk ci kaso. Sonko en prison Macky réalise enfin son rêve mu mel ni itam gént yi nga xam ne mu ngi ko doon gént boobu ak léegi bëggoon ko lu ni mel mujj na antu moom njiit bu réew bu Sénégal yéenekaay bi moom moo gisee loolee ndax boobu ak léegi bëggoon na ki nga xam ne nag moom moo di Ousmane Sonko caabi daal di koy féetee ginnaaw suñu ay naataango. yu tribune ñoom ñoo daal di euh, xaatim lu ni euh, mel Bougane Gueye Dany tam leen ci ay kaddu yoo xamante ni euh, daal dina ko yëkkati jàppal ne ca plage bu Lagon ñaar nit yoo xamante ni daal nañu génn àddina yoo xamante ni gis nañ seen ak néew. ci tefes gi soxna yi ñu dem ci Walf ba tey ak manifestation yeeg tey gi ñu tey Ousmane Sonko ci loxoy yoon. mu mel ni itam Ousmane Sonko ci loxoy yoon leen lu nemmeeku ci réew mi daanaka bëri ci ay gox yoo xamante Euh, ni ki démb saxaar gu ñuul képp dong lañu fa doon euh, gis euh, Walf Quotidien dikkaat na ci bu baax a baax page 2 3 4 jàpp 12 bu Walf Quotidien moom moo rek daal di xëy fësal nu ni mel déjà 3 morts la rek daal di àddu diggante Pikine ak itam Sikicoor Mary Teuw Niane itam yëkkati na ay kàddu mënees koo liir ci nga xam ne moom moo di bile yéen kaay yi. dem ci les échos ba tey ak Ousmane Sonko. Sonko en prison Pastef effacé deux morts à Zik lu ni mel rek daal di xëy fësal suñu ay naataango yu euh, les échos euh, faat yi ñu dem ci bés bi le jour ba tey ak Sonko. bés bi le jour ak Sonko mu mel itam Macky rek daal nay def lenn ci loo xamante ni itam naaloon na ko boobaak léegi porte Euh, portrait bu Ousmane Sonko un destin dissous lu nu mel la rek euh, daal di euh, jukki ak yenn ci ay parti yoo xamante ni jot nañoo dund lu ni mel Mahmoud Diop PAI Cheikh Anta Diop bu BMC BMS kitam li nga xam ne moom moo di parti yooyee nag jot nañoo dund li nga xam ne moom la Pastef dund ni ki démb. ñu dem ci Laas ba tey ak Sonko. Laas ak Sonko Sonko wile daal sëngéem ak itam fanaan guddeem gu njëkk Ah, fa nga xam ne nag ah, moom moo di ca kaso bu ah, Sébikotane laas dikkaat na ci bu baax a baax njiit bu réew bu Sénégal ci yooyu jamono ma ngay kekku ndax itam remise bu prix wu lauréat bu concours général bi nga xam ne itam ni ki démb ñu ngi ko doon amal ca Grand Théâtre Fatick ñu dem ci Vox Pop ba tey ak benn xibaar bi muy euh, Sonko mi ñu tëj kaso fii itam ñu daal di koy dissoudre. loolee la rek daal di euh, xëy euh, fësal suñu ay naataango yu Vox Pop ak limuk doomu aadama yi nga xam ne ñoom ñoo ci ñàkk seen bakken concours général mu mel ni itam prix yi nga xam ne ñu ngi ko doon amal bokk na ci Vox Pop daal di jukki. ñu dem ci Source A. Source A dikkaat ba tey ci les œuvres caritatives mu ñeel nag li nga xam ne moom moo di particulier di. Euh, Pastef ni ki démb itam euh, tàngoon na trop un lundi très tendu la rek daal di xëy fësal mi ngi ci li nga xam ne euh, moom di page sept bu source A. ñu ñëw ci le témoin quotidien. témoin quotidien di ba tey ci Sonko ak itam guddeem gu miti yi nga xam ne itam daal na koy amal lépp lu soxal wàllu démocratie bokk na ci loo xamante ni waxtaanee nañ ko nuy noire sur la démocratie la rek daal di xëy fësal ak juróomi poñ yoo xamante ni suñu ay naataangoo yu ne daal nañ ci àddu ñaareelu pàcc wi daañu dikkaat gën a faram-fàccee euh, lu ni mel. ñu ñëw ci euh, Sud Quotidien. Sud Quotidien bras de fer Ousmane Sonko ak itam état bu euh, Sénégal mu mel ni itam xëccoo woo xamante ni amoon na seen ak biir mu doon xeex bu yàggu lool ci loolee itam moo tax usman Sonko daal di dem ca kaso ba ndax ay kaddu yoo xamante ni mi ngi ko doon biral tolloon na ci juróom-ñaari chef d'accusation yoo xamante ni ñu ngi ko doon toppee waaye ci la jamono jàppal Faty ndax am na leneen ci loo xamante ni daal nañ ko ciy yokk. sport ak record à la une Ilimane. Ilimane Ndiaye euh, olympique euh, bu euh, Marseille xam nga ne itam teet nañ ko fa nañuy teeroo buur moom Ilimane Ndiaye déjà aux armes lu ni mel la rek dal di xëy fësal soxna Faty bokk na itam. ci keneen ku dem mu ñeel ki nga xam ne nag moom moo di Mané Niancho ma nga ca Arabie Saoudite na Sadio sur son départ du club moom nag la mu xamle moom moo di nag bëggoon demee nii mi ngi ci li nga xam ne nag moom moo di euh, page 6 euh, bu euh, record record itam dikkaat ci leneen mu ñeel wàllu afro basket Égypte Sénégal xam nga ni itam daañu laalee ni ki tey jii les Lions face à leur destin page 12 moom moo jukki lu ni mel mu soxal itam jeu wu afro francophone deuxième journée les Lions sont éliminés dès le premier tour page 8 moom moo tënk loolee fàtt yi. ñu ñëw ba tey ak stade à la une Ilimane Sadio Ismaïla saar ak euh, Jackson. boo ko déggee xel day dem ci li nga xam ne nag moom moo di euh, mercato bi nouveau départ euh, pour l'attaque des Lions loolee rek daal di xëy fësal. ñu jeexalee sunu lamb à la une Balla ak Ama Baldé. déchu de sa couronne chicoté par Boy Niang 2 gay Gaye de la grandeur à la décadence lu ni mel mu ngi ci li nga xam ne nag moom moo di page cinq bu sunu lamb pàcc wu njëkk. wi mm. ñeel li nga xam ne nag moom moo gënoon fës ci la yéene kaay xëy fësal ñaareelu pàcc wi daañu dikkaat gën koo faram-fàccee lan la waxtaan ñu dem ci Ousmane Sonko delloo delloo ba l'observateur Cheikh merci beaucoup Cheikh Diop moom la àndaloon ci yéen yi ak la xëyee ñaareelu pàcc bi ci kanam euh, dina ñëw mu gën a yaatu Chérif euh, li xew démb gis